heavyweights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 góor jigéen la suub subhaanallah ma ne ji am na lu toll ci fanweeri at wax jóge ca Liberia yëfi nag nee ñu nii la demee Johnson daa xaritoog dëkk Yoff dem am ci moom confiance waa ji nag moom musul sib ne borom ñaari tur yi waaye nag gisoon na ci moom ay habitude yoo xam ni ak comportement yu doy waar ni jaaxal na ko ci la tàmbalee nag di ñaaw njortu naka noonu sa waay ci la ko tendre pièce Johnson daa di ñëw foofa ca Yoff ñoom ñaar bi ñu nekkee ci benn chambre wet fa ñoom kott Johnson tàmbalee lambatuwaa ji une ma ne di ko palpe wax naka noonu rek ci la waa ji ay ci la ñu ñëwee jàpp Johnson tàllal nuuna ram ba mu ne ñay ma duma ko duma yu métti la wax lu toll ci fukki simili ak juróom laa la wax yoo xam ne Johnson dund na ko sawara <laughs> ma ne damaa xamul ana góor ak uti moroomu góoram waa ji nag nee lu tax mu def lu ni mel dafa bëggoon a am lu wóor ci Johnson ndax comportement yi mu doon gis ci moom <laughs> ma ne ko moo taxit gis nga gendarme yi nag biñ leen arrêté ba ñu ñaw te fekk ñu takk góor jigéen bi lapp ko ba muy bëgg a la wax naka noonu ci lañ ko tekkee boole gaa yi ko doon door yépp daal di leen yóbbu ëskay alaxira nar naa metti gis ay jigéen ba leen fa wuti ay góor moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca Jurbel romb na doy war ab waajuñ naan MK moo fa bojji m saw ñetti ku jaasi ndax waa ji da doon provoqué jabaram ay waay samba waa ji mu ngi woo turu f ji nag ne m saw daa ba mu génn mu dem këram di poroweke jabaram ay waay bàyyi leen jabaru jàmbur yi bàyyi leen jabaru jàmbur yi naka noonu bi ko sa waay yegee di koy akki ñoom ñaar ñu jàppante xeexoo xeexoo yu métti m kaa nag mi jëkkëru f saw nee na moom bi muy dem ci waa ji yorul woon arme waaye ne m saw ci boppam moo yoroon jaasi naka noonu ñoom ñaar bi ñuy xeexoo ci la ko ko dooree ci bopp ci la raageeg moom dal di nangu jaasi ji fogg ko ko ñetti yoon ëskëy mbir mi nag mujj naa teer yi ci loxo yoon em saw nag mi ñuy jiñ na moo doon jabaru jàmbur ci kanamu attekat bi daf ne mësul dem ci kër MK waaye kàddoom yooyu ef saw di jabaru waa am ak ñeenti doom dina ko ba tëdd ci naaj bi ndax nee na MK di jëkkëram ba mu génnee M saw ñëw na ci kër gi fekk ko fa di ko provoqué ay waay bàyyi len jabaru jàmbur yi bàyyi leen jabaru jàmbur yi M saw nag nar yi mu nar ci kanamu yoon tax na ba procureur door ko trois mois ferme <laughs> waaw góore waay naka noonu nag bi mbokk yi gisee peine bi ci la ñaari famille gisee waxtaan résister waaye fekk na boobu tribunal bu jur Jurbel reconnaître leen ñoom ñaar ñëpp pour coups et blessures <laughs> réew mi li fi xew kenn xamul lu mu doon moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona laa wax la xew ca Grand Yoff romb na doy waar ab moodu moodu la fa jabaru frère am taxe jigéen mu jël paaka jam ko ko mu dee pop pop Diop waa mu ngi wuyoo ci turu M Diop nee nañu sa waay daa jóge bitim réew waaye nag naka jekk sa waay kër gi mu dëkk daanaka am nañu bari ñoo xam na ci famille bu jubawul ak ñoom <laughs> bari na ci kër yi nag li am nag ba bi am nee ñu jabaru frère bi daf ko sànni ay baat ndax daf ne ko moodu moodu bu perte bi góor jigéen bi nga doon te it kaddu yeeg baat yooyu nee ñu reer dong ko indi a reer M Diop nag bi mu déggee kaddu yooyu ci jabaru frère mer bi mer ba futt la def dal di dem ut paakaam fekk jabaru frère bi jam ko ko mu jaare fa bakkanam waay waay ëpp na ëpp na de mbir mi nag mu teeree yoon moodu moodu yu mbir mi mujjul sedd moom ndax yoon daf ko daan perpétuité wolof naan ko giiru dundam lay tëdd ëskay moo tax ma ne jàngoro dal réew mi moo gën graw korona la wax la xew mercredi bi weesu ca parcelle ca lycée ba ma romb na doy war la laa wax élève bu ñam Cheikh Bamba Ndiaye moo fa ñàkk bakkanam ci ay xeexoo yoo xam ni ab match interclasse moo ko indi doxoon ci diggante seconde L ak waa première L naka noonu ay xeexoo am ci ba élève bii di Cheikh ba Ndiaye ñu blessé ko ci blessé bu graaw mu mujj faa jaaree ñàkk bakkanam alxamis bi ay waay réew mi dama yaakaar ne am na lu ko dal réew moo xam ne léegi violence bi fépp fépp la moom daal fa nga gënoon yaakaar ne fa lay dale fala la violence bi am maanaam ci bërëb yi ñuy jàngale bërëb ya ñuy yare réew mi war nañ koo sàng de li Serigne Mboor Mbay waxoon ne réew mi war nañ koo ndëppal réew mi war nañ koo ndëppal waaye li Serigne Cheikh Tidiane si waxoon ne réew mi war nañ koo sàng réew mi war nañ koo sàng baax na rek mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz